gaalu Marème Faye Sall di programme bu bees di wàllu jigéenu Touba fas yéene jàppal leen ci seen ay yëngu-yëngu ci wàllu koom kees gi nag soxna maam Xari Mbàkke moom Serigne Mourtada moo ko jël jébbal ko mbooleem jigéen yi nekk ci Touba ñu nemmeeku ni taxawaayam mën na yembal seen ay mbir ndaxte efficace na waaye tamit doon na système bu bees wu tekk yi fi woon loolee ndaw yi mu yónni ñoom ñoo ko biral maam Xari nag wax dëgg yàlla moom wàcc na ndax lii manal ay militant ak ay responsable politique am muy ñu am xalaat mu xalaat bi ñu am nekk xalaatu développement mu ñëw jàppale leen ci defar ay keesam jël ay laytaayam dugalal leen ko ci biir na ngeen ci liggéey nag ba gañee loolu yéen yéen a koy xam. soxna maam xari nag bi mu ñëwee fekk na am na ñuy def système mu gaal yi biñ ko ko waxee mu ne système boobu baaxut ndax am nit doo ko ne dama lay teg ci yoon di ko laajub dërëm. la ngay def mooy néew la ko bari la nga xam ne moom la ma yàlla dënk dinaa fexe muy wàcc ci askan wi rawatina sama moromu jigéen ñi. ba tey si ay leeral ñi ñu yónni woon groupement de famille wane ñi ñuy jëfandikoo kees gu mel. ni muy wàccee si ñoom mooy par exemple gaal bi tey mu leen di sampal day xool maanaam na nga xam ne maanaam ci mbooloo mi mu xool ni ngeen tollu mu yëkkati ab laytaay jox leen laytaay boobu mu leen di jox yemul foofu moom mooy yëkkati xaalisam defar lu gaalam. yemul foofu mooy yëkkati xaalisam defar ab carnet yi nga xam ne mooy carnet adhérent yi loolu yëpp moom moo leen koy defal ñëw nag jébbal leen ko ba pare continuer di leen gunge mais nekkul ab dërëm boo xam ne gaal gi da koy générer maanaam mu walbatiku delluwaat kër soxna maam xari déedéet ñoom jigéen ñi am mbégte loolu ba koy fesal santit ki taxawal kees gi di soxna maam xari mbàkke ndax jàpp na nañu nii lii dem mooy lu njëkk ñu ñëw wàllu leen si seen ay activité te nag kenn tegu leen seen ndodd kon ñoo ngi koy ñaanal lii ko Macky Sall sant dëkk bi yàlla na Macky Sall gañe dëkk bi cent pour cent te leen ci jàppal man di am fu ñu gisee ab maire ak ku ak ku mën a ànd ci parti bi rek fu mën jëlee ni rek dañ ko indi mu wateel euh, ndax soxna maam xari mbàkke moom seen ñu waaw kees gi nag noo ko sant di ko ci gërëm lii nun ba dalee politique ba léegi man ancien laa am naa ci lu yàgg naa ci parti waaye kees gu mel nii mosuñu ko am dañu daa dikki kees naa dañ leen indil kees dañ leen indil kees financé ñu daw a daw a daw a daw ba màgg ci terrain bi di ki mosuñoo financement dëkk baa ngi ni suñ koñ baa ngi financement mu mosu fee dugg kon nag bu ñu maam xëri mbaa te kees gi jox nu ku la ku la ku la may reer bu la diggee may la añ may bu la diggee ndékki da nga ko gëm. du soxna maam xarim Mbacke ci APR woo ñu jël si engagement bu mu def ak ñu koy liggéey ci PDS mu rafet moo tax mu wooñu rek ñu mën a ñëw xool nga lii bag sa bàjjan la fu ñu dem ci Sénégal dugg fa te moonu ko may amul solde waaye ñoo ngi def suñu volontaire di ci liggéeyal yàlla waaye liggéeyal yàlla ba pay gañ cee am moonu ko ji gaal gi moo tax ñu ñu bàyyi suñu itte ba ñëw gaal gi dañ ko yàgg a bëgg moo ndil ñu ko ci ci ci ci Macky Sall te wóor na ne jigéeni Touba ñu kenn du dem bàyyi ñu te gis gaal gi bu fi dellu siwaatee dina jot résultat yi bu soobee yàlla mboolem gox yu nekk si Touba fa seeni xaar kees gii ñu du pay gaalu Marème Faye Sall di leen di jàppale seen ay activité yi ñuy yëngu si wàllu koom ndax mu gën a jàppandal si Nguiranene ñu doon amal nag installation bi mbootaay bi nekk si gox bi jigéen ñi teewoon lii doon lenn si programme yi mu naal jàppale jigéen ñi si wàllu koom waaye tamit ci beneen wàll di programme politique ndaxte soxna Maam Xari Mbàkke mi ngi yëngu ci parti bii di alliance pour la république di fàttali enveloppe bu takku la délégation bi soxna maam xarim mbàkke yónni woon ci Nguiranene indaale ngir nag tàmbali waaye tamit ay bale yu ñuy jàppale groupement de femmes bi ngir ñu koy jëfandikoo si wàllu seet setalu gox bi loole di ndimbal bu bàyyeekoo tamit si soxna maam xari Mbàkke moom Serigne Mourtada